internet de la Dental TV ñoo ngi leen di nuyu tey ñoo ngi ci particulièrement fi ñuy wax Kamba fekk fi président Aliou Sow président mouvement essentiel amelon waxtaan tey ak waa gox gi mu jëlal leen en charge seen juma bi ak yeneen dimbal yu mu def ci bi seeni le président du mouvement l'essentiel euh, président tey nga ñëw ci fief première impression bi lu waral tànk yi ba pare. Euh, maa ngi nuyu comme ni ma ko waxee woon sànq di jutal ci nuyoo bi imam comme ci jumaa ji lañ ñëw di ci teg de quartier bi euh, di jël nuyoo dëkk bi di ci teg ci loxo ki nga xam ne daanaka tey lépp lu ñu mën ci àdduna ginnaaw yàlla si loxoom la ko jàll mooy suñu papa góor gi fay fii nag fii laa yaroo ni ma ko wax ci biir jumaa ji fii nii toog naa fi julli euh, ci naaj bi ci biir ci biti kon xam naa li fi xew su fekkee am lu fi metti xam naa ko ndax dund naa ko ak ñoom euh, mu nekk un grand plaisir ñëw fii Euh, du du particularité aussi fu ma ni parce que fii laa dëkk je suis tout le temps là dama fiy ñëw tout le temps et tey suñu amee une situation ñu war ci taxaw lu war la donc euh, on est dans une mission bu noble comme je l'ai tout le temps dit. waaw je l'ai dit. Euh, wax naa ko sànq bi may euh, bi may jël parole ci euh, biir jumaa ji euh, dafa am une particularité ci ñëw fii defar jumaa ji mais nag néew yàlla moom daanaka lu si ñu def rek su bopp nga ko defal donc li ci jiitu du politique du odora du wut image walla di wut électorat lu ma fi def lu ne sama bopp laa ko defal képp ku ma fi àndal ma def fi dara

ben étage bo xamné tet dañ fi man jangé wala euh dar moderne comme le dit euh, les jeunes là euh, à la limite jigéen aussi dafa julé parce que gis na né souvent jumaa yi Sénégal du ñuy bàyyi xel lolu mais récemment aussi gis na né ñu ngi commencé adapter situation bobu non da ngay dem ci dëkk yu développé yi fu ñu goor ñu défaral defaral jigéen ñi parce que ça motive aux gens de venir prier et puis loolu ci xeetu jàmm yalla donc en grosso modo on va prendre en ça tous les travaux ci carton yalla inshallah dañ ko def te lépp lu ñu fi wax aussi su fekkee naruñu ko man du ma déplacé ay caaxaan su ma si nar woon dara wala fas ma ko yéene du ma teg sama tànk fii gisuma dara lu ma ko jaral lépp lu ma wax fii incha allah su fekkee ñu ngi am dund nañ ko def incha allah. ginnaaw boobu waxtaan nañ tamit ci li nga xamante ni mooy melokaanu gox bi ñu déglu li nga xamante ni mooy ñaxtu waa gox bi. salaamaaleykum. ñëpp ma ngi nuyu seen tur seen sant. Mala Samba fay président supporter Manko ño fi yoon suñu mag moñu ñu won bok ci dëkk bi wow, daf dara ci dëkk bi mi ali saw waaw essay nak dañu am ay jafe-jafe ci dëkk bi bu baaxa baax waaw ci walu ndox mënd bi sonal nañu waaw ñi préparer nawetaan nag suñu terrain wa ngi ñi bëgg ay pompe ñu ngi bëgg canalisation surtout canalisation parce que ñoo bëgg développement boo xam ne suñu dëkk dafa a set suñu banlieue dafa war a changé te dafa jot dañoo bëgg canal boo xam ne day jógee fii si garage clando yi dem ba canal bële ñu am ay regard dëkk bi ñu fay tuur ndox pôle mbalit yi am ñu am ay pôle mbalit ñu loolu la ñu bëgg parce que ñoo bëgg génération baleem bu bees ay poubelles yu am maanaa waaw parce que suñu famille dañoo sonn fi ñuy tuuri ji mbalit dañuy sonn waaw bëgg nañ nag defar suñu gox instant yi bëgg ñuy jàppale ñu defar suñu gox amuñu foyer amuñu espace espace bi ngeen gis ñi nag lu tàmbalee fii ba siraay bi ñu suñu maam yi ñoo fi njëkk kàmm moo jiitu Pikine nañ ko wax te dee am na ay tuuti fonds fi taxaw ñu ne ñoo ko moom te am te loolu du logique dañoo bëgg espace comme ñëpp ni ko waa Mbao amee ni ko waa Mbefa amee am nañ espace nag dañoo bëgg état jàppale ñu si Aliou saw jàppale ñu su ñu lay wax suñu problème ñoo bëgg espace daf fi foyer daf fi dispensaire waaw daf fi waaw ñu ñu gërëm nag waaw su teewaay ñu lay sant. dégg nañu dégg nañ doléance yi euh, di wax ne lii aussi du lu ñuy wax pour ñu soog ko xam. il faut ngeen xam ne fii fii laa màggee donc peut-être deux dernières yi rek laa fi ñëwul par manque de temps. mais terrain bi fi lañu ñuy tout le temps donc on sait ce qui se passe fii xam nañ lan les problèmes du du quartier maintenant euh peut-être demander wala solliciter aide c'est tout à fait normal comme tout être humain euh, lu normal la mais le fait de venir ici dafa ñuy gën a xel dëkk bi mais bëri na lu fi war def il y a beaucoup de choses à peut-être je dirais pas dénoncer mais euh, ñun ñoo dëkk ñun ñoo dëkk nous sommes dëkk ci commencé à ñu fekk ñu ci man gëm concept aussi am ci lépp lu euh, maintenant on va s'en acquérir de plus par rapport euh, problème ndox bi maintenant le comment ndox dootu fi nous parce que nous di ngàcc di à travers jënd ay moto pompe ak ay PVC di ngàcc muy dem te yàlla moom kenn du ko teelee tawam bi tey taw gis ngeen récemment li xew euh, États-Unis barki dem ak dem 48 morts te ñoo ñoo ñu ëpp doole fuuf gën ñu baax ay canalisation prévoir ay canalisation gis ngeen li xew Allemagne récemment li xew France xew Belgique inondation de mbiru nit nit nañ bàyyi xel ci loolu mbiru yàlla la certes nag état won dafa effort lu ñu ci ay canalisation wala prévoir évacuation yoo xam ne day tax ëllëg

taw dafa am importance nit nit ñi nañ bàyyi xel loolu maintenant nag li ñuy lancé appel rek euh, mooy les autorités compétentes yu local bi aussi ñu leen di wax ne nañ gën a bàyyi xel population yi moi j'ai pas cité de nom j'ai pas l'habitude de le faire j'ai pas aussi pointé du doigt à quelqu'un mais j'ai attiré l'attention de des autorités wax leen ne dëkk bi soxla nañ aide nañ leen dimbali ñu ne lépp luñ leen mën a jàppale ci loolu noonu si suñu wàll nañ ci ne ñu def ko beneen appel bu may lancé je lance cet appel aux populations de Kambo di Bakkan Mbaye Fall ni tool Diaz waxuma benn dëkk fii laa wax particularité Kambo famille la man li may ñàkk dëkk fii léegi yëpp fu ma képp ku ma tasal ko dëkk Kambo sama tur ngay jaar te su ma la gisee naa la xàmme loolu richesse la bàyyi leen ci xel te bu nangu nit ñi jël ci su bi bu bi dafa jot da ngeen di ànd ngeen defar dëkk bi dëkk bi pare su ngeen xajali ko ku nekk jël ay vacation ba pare jël ay ambition mu def ci poosam dem ko ne liggéeyam maintenant buñ jël ndox di ko politiser buñ jël taw di ko politiser buñ jël dëj di leen politiser buñ jël ngente di leen politiser nañ politique dans la plus grande discrétion et dans le concret mais ndox taw nit ñi di reyante parce que bokkuñ fu ñu fu ñu nekk y' a pas de raison dëkk bi taxul leen jóg du dëgg su dëkk bi taxawee bàyyi leen lépp ngeen ngeen ngeen jiital dëkk bi man dañ ma problème bii démb leen ma ko wax c'est pas tenu de venir ici aujourd'hui war ma foon ñëw ama temps mais dañ ma ko wax ma bàyyi ma lépp ma ñëw parce que fii laa am fii laa dëkk loolu laa gëm noonu ma ko gëmee nag ci loolu laa di ñàkk ngeen gëmee noonu dëkk bu taxawee problème dëkk bu taxawee nekk lañ ci problème mu dëkk bi su ngeen jógee ci problème bi dëkk bi ba ngeen réglé ci leneen Vous avez une vocation, vous ngeen une seen ay politique ngeen dellu un ay mouvement je suis le président de l'ASC Manko Je voudrais a wax rek euh, juste pour euh, di remercier suñu suñu frère euh, Aliou Sow président du mouvement l'essentiel mu un fi tey vraiment def acte bu rafet acte ci dëkkam comme ni ma ko waxee sànq ci biir jumaa ji parce que je crois bien que loolu moo ko yëkkati woon tey dégg démb ne jumaa ji am na problème bon vraiment euh, bi mu ko déggee mu bàyyi léppam comme ni ma ko waxee léegi ñëw tey doon xool exactement lan mooy euh, en tout cas le le problème réel je crois que bi mu ñëwee aussi ñun ñëpp dundandoon nañ ko expliqué nañ ko li nga xamante ni moom moo fi nekk gisal na ko boppam et il a pris aussi des engagements Euh, ñu koy ñaanal yàlla rek euh, engagement yooyu comme ni mu ko doon defee parce que ñoo bokk dëkk suñu frère la euh, bokk lépp engagement bu mu mës a jël vraiment respecté na ko donc engagement bi nga xamante ni moom la jël nii ci jumaa ji tey aussi yàlla na ko ci yàlla yàlla na ko ci yàlla jàppale lépp loo xamante ni vraiment bëgg na ko ci parce que ñun mënuñu ko ci gën a gën a gën a gën a rafet yéene parce que wax na ko fii la dëkk ci dëkk bi lu mu am fii la ko amee euh, fu mu taxaw loolu lay wax sans complexe am na ñu mu doon doon xëy na peut-être su génnee fii day benn waxee neneen wala mu taxawee neneen et il l'a jamais fait donc loolu dañ ko ci dañ koy saluer di ko ci gën a ñaax aussi euh, ni ko mag ñi magu dëkk bi waxee noon la demee fi mu teg tànkam foofu la bu ko bu ko teggi en tant que frère ñun en tout cas loolu lañ lay loolu lay digal euh, aussi di la ñaanal yàlla donc euh, ci loolu lañu dox ba ci terrain bi actuellement fiñu taxaw je crois bien que kenn du laaj ngi ci terrain Mango. c'est pourquoi même mané bon dem sans pour autant que vraiment euh, ma jël même ñaari la pour euh, léral touti. parce que fini, mu taxaw pour wax liñ lay wax ni ma ngi don xol suma portable dama dafa compte Google sinon dama leen di mais ci face bi man moom ak pas mal de en tout cas jeune yo xamanteni ñi ngi ci assistance bi taxaw nañ fi demb avant tay donc taxawayam bi tay su ko lu war la ñun duñu jaaxal donc comme ni mu waxe aussi am na ci lo xamanteni du politique mom moko ko yëkëti euh fofu la encore une fois parce que ku xamul rek xamulo mais li am solo moy nga xamné tu as tes frères derrière toi. Euh, fo faut sibiro fa des donc parce que affaire affaire de politique encore une fois comme il est journaliste,

ben, c'est vrai. Donc, euh, pour revenir à ta question, euh, on a décidé de faire euh, une tournée. à l'intérieur du pays. On devait aller dans le sud. Normalement, si, juste après, nous devons aller village parce que si on le président, on a tourné au niveau du sud. Nous avons une faire avant de maintenant après le contexte bi tax euh, président annulé voyage dans le sud moom moo ñu tënk ñun tamit ñu Nous avons ay tournée ñu programme parce que à ce Covid bi donc on pouvait pas s'engager di jël ay dom jambour wala ay di euh, c'est pas de meilleure condition pour la santé contexte Covid nak mom motax ñu arrêté maintenant euh, su nañ yenn yi euh, aussi yalla def ñu ñu situation bu mu ñu ci Covid bi nañu reprendre tournée yi ak aussi vous avez toujours été là Euh, de votre disponibilité, votre sérénité surtout. et le travail courageux que vous faites euh, maa ngi leen ci remesé bu baax di wax ne chaque fois ma soxla leen dama leen di gis loolu sama me rassure sur beaucoup de choses waaw yàlla ñu nga àndal ñëpp maa ngi leen di remercier di remerciement di ko teg ci sa loxo ñaat waa ami internaute de la TV lii lañ leen indiloon ñu leen di jox dig daje ci neenu jotaayu xibaar jërë ngeen jëf